asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi la sant yàlla jur ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Seexuna si Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul tey nag ñëwoon si eh, andi siyaara Cheikh Moustapha mu Cheikh mu Cheikh Sidi Muxtaar di jawriñ Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ci njabootu Serigne Mame Cheikh Anta gépp ñu ngi doon siyaara ci bés bu tedd bii nga xamante ni si bés la boo xamante ni képp ko fi teew rek ah sunu borom doon la jéggal say bakkaar ndax li nga xamante moo xewoon ci diggante bi muy sëriñ Maam Cheikh Anta ak Xaadimu Rasuul mu nekk bis bu tëdd bis boo xamante si ci bisu yërmande la bis la boo xam ne bisu njéggal la moo taxoon ñu àndoon ak Cheikh Moustapha mu Cheikh Sidi Muxtaar ñëw siyaare si sëriñ Abo Mbàkke mi nga xamante ni si ku yàgg ak sëriñ bi la wëllëre sëriñ Cheikh sëriñ Sidi Muxtaar la sëriñ bi daan waxtaan moom ci lu bëree bëree bëri ñu ñëwoon doon ko siyaare ñu sëriñ mu roqee ñu ci sëriñ Abo kon ñu ngi sant bu baax di jërëm bu baax di ñaan suñu borom képp ku fi teew suñu borom jéggal say bakkaar asalaamaaleykum wa rahmatulah. bokk yi julli ñu ngi nuyu di leen siyaare ñuy wax Lamine Diop waaw mooy waxtaan ak yéen ci sole bis bu mag bi nga xamante ni. Lamine sëñ Lamine Diop moom Cheikh Abdoul ñoo xam que sëñ Lamine Diop moom sëñ Samba Bint waaw bis bi nga xamante ne bis bu mag la muy bis boo xamante li ko tax a jóg mooy sëriñ bi bi nga xamante ne ni dem na ba ànd ak noonu yàlla yi ba sunu borom waral mu dikk not noon yi dellusiwaat Sénégal bi mu dikkee mu ne wallaahi yadduhu ilaa daari salaam yàlla wax ci alxuraan kat noonu la ko waxee ci moom mii. bi muy ànd ak tubaab bi nag ci laa doon waxee naan ma way ka fab ab daram lal géej ba julli mu mat te baax dawul xablawul xiblab sëriñ saa ngi ku sëriñ bi bu julee sax ci dégg dana diig bu dee sayaan dana say ab diir sëriñ baa ngi ak Ibra Fall ak borom gaawaan mbërëm yaa ngi kon nag borom gaawaan moomu nga xam moo def lii am lu rëy ci sëriñ tool Seexul Xadim Seexul Xadim jagleel ko ne ko kat bis bu ma jógee ci noon ya ba lislaam taxaw sa la laa njëkk jaar te suñu borom li Seydina Aliou defoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ba suñu Seydina Aliou amee juróom-ñaari at la ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yonent bi taxaw ni man maa ana baytul hulum wa alin babuhu borom gaaw noonu def bi ko sëñ bi boolem di sëñ bi ku sëñ bi wóolu ba dénk la mbooloo moo ci jiitu ndax moo la njëkk dénk mbooloo ci toll at yem toll te boobu wóolu gum ko wóolu taxoon di sëñ bi demee fekk na ko ci gi defal ko loo xam ne lépp loo xamante ne laa lu yor def la kon daal ñu ngi ku ñëw ku ne ajjana jooju mi ni fii mel ko ajjana tey ju ëllëg suñu borom man laa may ajjana jooju waaw ndax nit la koo xamante ni li mu liggéey sëñ Tuubaa gisuñ kenn ku liggéey lu toll noonu kon nag ku ñëw kon daal saxel waaw sëriñ Abo moom ñu ngi sant baax ci maanaam euh, lii nga xam def na ko ndax defe naa béy lii ma doon def maa ngi leen di wax leen kat xam ne maam yi la leen tëwoon tëwoon bàyyi te ñëpp suñu sëriñ Abo yàlla def na ko mooy Daaru Salaam gi mu jël def ko muy wenn say mu woo waa kër sëriñ Afe waa woo ay rakam woo ñëpp ñu ànd liggéeyal seen maam loolu nag li ko waral mooy sëriñ Abo suñu borom dafa ko ay cër bu rëy rëy ndax ci bi ci ak ndawam dafa dem ci sëriñ Modou Mamoune ne ko dama bëgg dama dégg ñoo dañuy jébalu mu waaw mu ne ko man yow yaa ma doy ci njëbbal mu jébbalu ci baayam yaakaar naa loolu pëste bu ko gën a ko defee ba suñu mudu maamul Moussa woo suñu bu da koy wooye ne sama tëëli bi bu ba kon ba mu am na ko nit ba jaxat nee na bala ngaa ko suñu ba ami tëëli bi loolu boo tax mu lu toppi magam yëpp bu mu na fi yàgg lool ba su baay beeg maam ay fan te li mu teñ bi woyof ci moom lool bu mu àggale ko fu mu bëri jëm kon ñu sant suñu bu baax a baax di ñaan yi ci barkeb soxna may mi nga xam ne moo ne woon Daaru Salaam na fi jàmm salaam ñëw te ba fi rambaaj bu mel ne meex di rooru di fi ñëw loolee yàlla bu mu fi ñëw yàlla na àggal lépp ñëpp taal ko bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nii mbokk yëpp di leen siyaara ji tur sëñ Abo ci ndigalam mu wax ne naa ko waxal ci cosaanul màggal gi li ma ca am na fekke mu ko ne waaye dégg naa ci lu bari te ku ko ku ko fekke moo ko nettali dañoo wax ne màggal gi sëñ Modou moo ko ñaanoon sëñ gaawaan ne ko bis bala sa mag ju baax ci sëriñ ba gane si woon bëgg may ma ci ndigal ma di ko màggal sëñ gaawaan nangul ko ko lool ne ko soo koy def fu sa ndaw fu le doon sa ndaw ci réew mi fu ne maa ko yónneel fu leetar dem boobu moo ko yónnee ba réew mépp àgg bi na noppee mu ne ko sëñ baa ku koy liggéeyal alxuraan moo ci war a jiitu daal di woo sëñ Massamba muy xëyee Touba di ñëw suñu xëy su xëyee takk fasam gaa yu baax yi des ànd ak moom ñëw yendu fii mu bu takkusaan ñu te tekkaat ñibbi noonu lañ ko def ba léegi ba juróomi fan yi mat ñu door a wàcc loolu nag mooy dox ba léegi bi sëñ Abo dikkee nag da ko gën a yokk gën koo yokk gën koo yaasal boole si ñëpp na mu ko defee woon ne la ko bëggee na cosaan la dikkee woon rek noonu la ko bëggee ñu xëyee Touba di ñëw ñeneen di xëyee fu di ñëw li fi ñëw ci daara kaamil la ren kenn xamul nu mu toll. man mii waaw yàgg naa ci ñëw de ndax jamono si Modou Rokhaya maa ko jiite woon waaw li fi si Modou Rokhaya nekk lépp jiite li fi si ñu am nekk jiite la ko jiite yéen daana ci ñëw waaw ndax njàng mi suñu masam moo ko a jiite suñu Modou Fatickane topp ci suñ Cheikh Bousso sama baay topp ci baay suñ Bousso Elimane topp ci suñ Matalib suñ ñoom ñëpp jiite nañ ko suñ Ndiaye Gadi jiite na ko suñ Aliou Ndiaye jiite na ko suñ Abdou Samad jiite na ko lu yàgg moom laa moom laa daana ànd ak moom hmm, gannaawam suñ suñ maam suñ maam suñ maam Biram Mbàkke jiite na ko gannaawam Cheikh Kanji jiite na ko bi Cheikh ji jógee nag lañ ne ma jiite ko gannaaw yaa ñoom ñoo daa ànd te te fii nga dëkk boobaag léegi nag li ma ci manqué bëriwut waaw at yi ñu weesu nag wax dëgg ñëw mu ci woon ndax woowuñu ma woon waaye bi sëñ bi diggee ne la ne man na mu meloon nañ delloo batt bi ca ndaala ñi daa ñëw nañuy ñëw ma ne ko allah waaw waaw ñëpp ci lañ bokk sëñ Tuubaa li ñu koy defal ñëpp ci lañ bokk ndax li mu wax kenn mësu wax irham jami xal waraa waraa ñëpp ci la doomu aadama ak lépp rek lu am ruura ci nga bokk ah li ma guñ ko waaye bari na waaw ah, ndax boo ma ci mujj daan ëpp juróomi junni daan ëpp juróomi junni waaye boo daaw ni nii daaw hmm. waaye nag buñ ko dajale wona noppi tam soo ko laajee maam bal daan la ko waaw ah, waaw ah, kon nag ñoo ngi sant bu baax tey ñaan suñu ko yàgg fi lool suñu tubaab beral ko loxo te jotaayam bi te ñu ànd ko moom lu mu bëgg a liggéeyal maamam bu ko liggéey suñu tubaab fii mu def ko te ñu ànd ko moom te lépp yokku yaatu ànd ak mucc xéewal ku fi dikk soo ñibbee xam ne ñëwoon ko Daaru Salaam waaw ndax loolu sëñ bi wax euh, waa ju fi ñëw bis bi bis bi dee ko màggal mooy fayam sama bis fa yàlla dee ko màggal mm-hmm. waa ju ko màggal màgg dee ko màggal mooy sa bis fa yàlla dee ko màggal waa waa fi ñëw ngir yàlla ak yónneel ba waaw ay wayu bari la sëñ Musaa waaw ku fi ñëw rek bay dal am xayda maraam moo ci muñu ci wayoo waaw xayda maraam te loolu la ñuy wut ndax xayra mara mooy àjjana waaw te ku dikk xam ne lii misaalum àjjana la waaw lu nekk lu nekk a ngi fi daanaka waaw waaw waaw minal jannati ilal janna